dégg nga daal wax yi jonn yow. li mu wax noonu lu am la Bada yow kii Babacar. Mhm. Ama ba depuis muy bëri ak ñoom Balla Diouf yi ñooñu. Mhm. ak ñoom Tapha Gueye numéro 2. waaw. Eh, yi dañ ko daan jëli entraînement ma koy seetaan ci laa xam ne Ama ku mën bëre la. Mhm. parce que gisaguma ci làmb ji mu bëree tànk te foofu gis naa ñu sonk tànk muy mboot di ci bëre. comme ni ngeen di def rek yéen mbër di préparé ko. maa ngeen jëli ko entraînement waaw gis naa foofu ñu wane ko muy mboot di bëree tànk. Mm-hmm. mais boo xoolee ci làmb ji. Mm-hmm. day ñëw dal sa kaw teg la loo xam ne mooy mooy mooy loolu quoi. Mm-hmm. mais li ma jaaxal mooy Gris Bordeaux. ba muy bëre ba léegi dama gisagut mbër bu ko mani mën mën manipuler nii rek daan ko dem sa yoon. maanaam saax saaxee ko ngeen dem. waaw hmm? gisaguma ko. ñëw rek dal ci koom saax saax ko manipuler ko daan ko rek dem sa yoon. te et puis daan ko ba war ci koom sax dafa jafe. boo xoolee Eumeu Sène moo ko fi def. moo ko daan ba wàcc bi. seen combat bi. Mm-hmm. waaw ak Balla Gaye seen dernier combat ak Balla Gaye seen dernier combat bi. Mm-hmm. te moog Balla Gaye gis nga seen combat bi lu mu demee. Mm-hmm. combat la boo xam ne dafa avant kon ku ne da nga ci am avantage. ku ne ci avantage la ci am. seen avantage mooy ñoom ñaar ku ne da nga bëgg sa moroom tànk mi ngay teg. ku ne da nga bëgg droite. ñoom ñaar ñëpp tànk. waaw ku ne droite ngay teg parce que dañu jàkkaarloo. mais ci xeex bi. dégg naa Ama mu ne. giri loxoom diisul. diisul waaw loolu koy dóor ma fekk ko fa jàpp ko loxo mais man du ma diggal benn mbër. Hmm. ngay sa ku ci làmb boo ko mënee moytu moo gën. kon wax loolu ama wax yow àndoo ci. non man ànduma ci de. boo ko mënee moytu. Hmm. moom moo gën quoi. Hmm. parce que boo jëlee coup des fois. mën na yàq sa bëre quoi. bien sûr waaw mbëru bërëkat. nangu jël coup. jël na coup ci Modou Lo daanuwul. waaye lu yàq làmb loolu ci la bokk. ku baa yàq làmb. Ah, ah mais moo yàq làmb ja. Mhm. ku Modou Lo mhm. ama daanul mooy moo yàq làmb ja. Mhm. moo tax warul nangu jël ko. war na mën a jéem a bëre bu bëre bi jeex te bu mënee moytu ko te attaque bi muy attaque nu defaraat gardam. attaque bi muy ah. attaque. ama teen rek ñëw. dafa gëm boppam wóolu boppam di trop te garde bi na ko defar quoi. yow Babacar ku ku ku man du ma digal kenn nga koy jël ci làmb <laughs> non non arab waaw hmm? wax wér na de ku moom ku lu ko digal kenn nga koy jël daana wàññi ndax dañuy faral di wax naan boo doonee cent waaw boo jëlee ku jàppal ni yaa ngi ci soixante wala cinquante ba pare ba pare Babacar wàññi lu bari ku mu dal